asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñuy topp di ñu bàyyi xel ala kulli xaal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara leen ndokkee di leen jaajëfal ci topp ngeen ñuy topp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ba boole ñu defal ñu yiw àdduna ak woo àllaaxira ala kulli xaalin seen jotaayu asraar ki leen koy defal seen mbokk Serigne Mamadou Sylla Firdawsi asraar tey ñu ñëw ak yéen ci jotaay bu am solo di leen jox suratul ixlaas bu mag sharru suratul ixlaas kabirun sharrun kabirun incha allahu taala secret bu màgg màgg ci suratul ixlaas moom lañ jox ala kulli alin yow mi nga xam ne da nga am ay bar mi nga xam ne da nga tukki te di daan doole te taxul mu neex tukki bi neex incha taala jëfandikool secret bi dañu ko leeral ba mu leer nañ incha allahu taala moom lañ teg noonu ci arab in kaana lahu xaajatu inda taala falyaqum fi mawdihi laa fi mawdihi laa yaraahu ila taala képp koo xam ne nga am ajo aajo yëpp nag la man ndax képp nga am aajo nga nga sàkk ko ci yàlla nga dem ci barab boo xam ne kenn du la gis kudul dul yàlla sa borom incha allahu taala bu ko defee nag euh, xawaatim bi nga xam ne moom mooy njëkk a dagg muy xaaritul indil moo nekk nii ci xawaatim boo xam ne murabbahu suratu ixlaas la adadu nafsi suratu ixlaas moo ci dem suratu na nag adadu nafsi bi neuf cent soixante-douze la mas naa joxe euh, benn sor boo xam ni tam moo ci dem mu màjjat bi waaye boo musalla la woon waaye murabbahu suratu ixlaas bi bii ngay dagg boo gannaaw boo wéete ci barab boo xam ne gisee su la gisee fu la maanaam kenn gisu la ku dul yàlla sa borom maanaam nga nga dem ci barab bu wér rek nga boo ko jëfandikoo ala kulli haal nga dagg xawaati murabbah bi nga xam ne wax naa ne neuf cent douze moo ci dem boo ko wàccee neuf cent douze moom moom la lay jox ala kulli nag ñu def leeral gu ndaw rek eh, ci léeg-léegi nañ jugal xaatim am ñoo xam ne dañ koy wàccee jàpp dañoo juum te ñoom ñooy juum donte sax léeg-léegi ñun ñu juum ndax nit eh, yàlla da ko bind ci kaw muy juum jub yu bari waaye ala kulli ñu leeral rek ni masalan ci côté ndeyjoor bi bu fekkee na nga koo bëgg a wàcc xaatim xool ba xam tolloo na da ngay jël deux cent trente cinq deux cent trente cinq mu nekk ci sa côté ndeyjoor ci kaw yow mi jàkkaarloog euh, xawaatim bi noonu ci kaw deux cent trente cinq la am na ñoo xam loolu deux cent trente lañ koy calcul ndax dañuy jàpp ne loolu mel ni lu rong ab zéro koy jàpp te fekk bu dee ci machine bi boo ci bind yim lay jox tomb bi mooy nekk mooy nekk zéro mooy am tomb waaye bu dee loolu am lu mel ni rondo loolu ab cinq la ci machine bi boo ci dee bind lim la indil bu fekkee nag ñu den topp nga xam bu ñu doon bind dañ doon bind ci xalima wala ci sun bi bu boobaa nag nañ ko bind ci beneen façon waaye bu machine bi façon cinq bi la lay indil kon yow mi nga xam ne yaay calcul nga xool sa côté ndeyjoor na nga xam ni deux cent trente cinq moo nekk ci sa côté ndeyjoor nga wàccaat itam buntu bi ci bi ci topp ci suufam deux cent quarante six moo ci nekk loolu di mel ni ab trois ca nasaraan itam ab quatre la fii mooy deux cent quarante six nga daal di wàccaat nag ci suuf bi ci toppaat muy deux cent quarante tomb boobu nag mooy si signifie fii ab sero nga daal ci yokkaat bi ci suuf muy deux cent un lii lépp soo ko boolee neuf cent soixante-douze la jox loolu la war a jox ndax mooy xawaati mu sotul no noonu dañ koy wàccee ñu bàyyi xel léeg-léegi ñoom te yu ndaw yi ci am alaakulaa ñu ngi jéglu bëgguñu vidéo bi gudd moo tax yu ci bëri dañ koy jéem a invité waaye itam bëgg nañ ñi topp ndax dañoo am yéene leen jàngalaale yéen a xam mu leer ndax xam-xam li tax ñuy changé version yi di jël version machine bi eh, dana waral bu ëllëgee bu gisee xawaate mu mel ni nga mën koo dégg rawatina kenn mbokk donga daara yi nga xam ne seenum arab uh, soriwul lool mën nañoo bañ a xàmmee uh, adat yi ala kulli haal noonu la rek kon xawaatim bi ngay bind gannaaw boo nekk ci barab bu wet boo pare nag xawaatim bi mën nga koo takk wala nga sangoo ko boo pare nag nga doog a uh, def nawaafil gi dangay def gannaaw boo defee nawaafil gi ba pare sax ngay doog a dagg incha allah nañ leen woon na gi nawaafil gi mi ngi nii Euh, muy da ngay julli ñeenti rakka moom lañ tënkaloon ci arab pour ñi nga xam ne dañoo dégg arab te ñuy ko defee ñu taay cee jaarat ngir bañ ci guddal bi ñu wax ko rek muy nga julli ñeenti rakka rakka bu nekk ñoom nag nga jàng ci fatiha benn yoon bu njëkk bi ixlaas fukki yoon mooy ixlaas fil awal asran bu njëkk nga def ko fukki ixlaas bu ñaareelu rakka bi nag raat ci def ñaar fukki ixlaas daal di salman summa taslim waaw salisa wala ngeen waaw wa fi salisa nga def salaasina lixlaas muy trente lixlaas fanweeri rabia ci ñeenteelu rakka bi nga def ñent fukki lixlaas muy arbaina euh, lixlaas gannaaw boo paree nag boo sëlmalee ci julli gi euh, yaa ngi daal di sikkar lee muy iqra'u suratul ixlaas xamsiina marra maanaam nga sikkar wala nga jàng suratul ixlaas xamsiina marra maanaam cinquante fois suurat al-Ikhlas cinquante fois wa yusalli ala nabii taala alayhi wa sallam sabiina marra maanaam soixante dix nga julli ci yonent bi julli gu jàppandi ci yow rek soixante dix fois nga toftal ca wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim sabiina marra lii mooy secret bi boo defee nii rek jàppal ne yow def nga def nga secret bu mag xawaatim ba nag du ca force da koy dooleel rek waaye soo ko soo ko ci deful sax te def na waa nii ñu ko waxee nii rek ala kulli halin wallahi la si sirru bu mag a màgg la waxoon man sama jëm bopp dama koy def ala kulli halin waaw eh, ñu wax leen nag yi nekk ci moom ci njëriñ yi eh, ci tënk ko waaye nag wax naan xawaatim bi du force waaw yow mi def lii de fa in kaana alayhi diinun qadallahu diinahu fekkee da nga amoon ay bor yow mi jëfandikoo secret bi yàlla dina la fayal bor fekkee danga nekkoon ab doxandéem ab doxandéem maanaam ku tukki nekk mel ni masalan muudu muudu nekk ci réew yi nasaraan wala yeneen réew euh, di sàkku wërsëg taw mu dëgër lool nga jëfandikoo lii incha allahu taala yàlla dina la defal wërsëg bu kawe kawe ba euh, raddallahu taala baytahu wa ahlahu yalla dina defal wërsëg bu kawe kawe nga dellu ci sa njaboot yàlla dina delloo ci sa njaboot ci sa kër ak rek incha allah te la ci am solo sax mooy siro bi boo ko defee bu fekkente ne nga amoon bàkkaar eh, bàkkaar yu tore niiru asamaan si kan am nga boo jë boo defee secret ba pare boo jéggaloo yàlla yàlla dana daal di jéggal incha allahu taala eh, bu fekkee ne in lam yakun lahu waladan bu fekkee amoo doom yarzuqu llahu waladan bu fekkee amoo doom yàlla dana la wërsëgale doom la may doom te yow mi jëfandikoo sa kere boo ñaane yàlla rek yàlla day daal nangul la nga ñaan ca saasa incha allahu taala mu nekk secret bu màgg boo xam ne maa ngi koy dénk mboolem ñi nga xam ne ñu ngi may topp di ma bàyyi xel ñu ngi jégalu jërë ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi leen di ñaan ngeen abonné ci seen jotaay bii di Firdawsi Asrar ngir lépp luñ dugal ngir laay biir leen ko rek ngeen mën cee jot incha allahu taala